أكبر السلام عليكم السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatuhu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara te di leen ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bi ñu daje di ñaan sunu boroom jaamu yàlla gi mu gàlloon ci suñu loos mu di kenn ci ponk lislaam yi di weeru koor li ñu ci def lu ci am ci ak gàttañ lu rek yàlla na nu dimbale ci yërmandeem ak mu baaxam ba mottalul ñu ko te nangul nu ko ci barkeb weer wu tedd wi ci barkeb alquran barkeb sëriñ bi di jiital ci nuyoo bi al cheikh mohamadil muntaqa xafidahu llah warxaah di nuyu kilifa kar alxaaj mohamad fadil sëriñ abou baraka moom itam sunu borom yàlla na ko fi doolee bàyyi te wéral ko di nuyu kilifa kër alxaj Mouhamadul Amin eh, sëriñ Moustapha nekk ci bopp bi eh, di ko ñaanal moom itam sunu borom bàyyi ko fi te wéral ko ba sembu yi mu sembu liggéeyal ko alxaj Mouhamadul Amin eh, yiñ teg suñ bët ak yiñ tegagul suñ bët yàlla na ko yàlla dimbale ba mu àggale ko ànd ko ak njaboot alxaj Mouhamadul Amin gépp njaboot alxaj Mouhamadul Amin nag buñ ko waxee mën yaatu mooy kum jural boppam ak kuñ ko jural rek ci njabootam la bokk di fàttalente bu baax rek eh, ñu xam ne weeru koor bi moom jeex na ak jaamu yàlla nag day continuer nit ki nag dafa war a fexe ba na koor gi fekkoon mu di ko góor góorloo koor gi ñëw mu yokk ko na fexe ba bu koor gi jàllee moom ci boppam mu yëg ne tàggetu gi mu doon tàggetu ci biir weeru koor wi def na jeexit ju rëy rëy ci digganteem ak jaami yàlla yi digganteem ak boromam subhanahu wa waaye digganteem ak jaami yàlla yi ci ab jëfla jëflante bu rafet mu mel ne nag war nañoo wattandikoo doon ay ramadaaniyin mooy ñoo xam ne dañuy góor góorlu ci weeru koor wi waaye bu weeru koor jàllee ñu delluwaat ci anam gañ doon def ci ak yaafus loolu mat nay wattandiku bu baax a baax mu mel ne weeru koor wi kenn ku ne xam na ne kem kattan kenn ku ne mi ngi ko doon góorgóorlu ci jaamu yàlla di wattandiku tere yi weeru koor jeex na nag waaye teewul nag na góor góorloom ya te wattandiku gam doon wattandiku tere yi itam mu gën koo jëmale kanam mu mel ne jullit bu nekk war naa fexe ba ndénkaane yi nga xam ne moom la sëriñ bi indi ci biir ba bi doy na sëkk ñu tekkal ko nit ñi ñu xam eh, ne ay soññee la yoo xam ne li ci gën a kii mooy li ci gën a tënku te ëpp ci njariñ mooy wan na jullit bi ne ko daal amul nit ki lu mën a am ci teraanga lu koy amal njariñ lu dul ragal yàlla ne teraanga dëgg-dëgg mooy ragal yàlla wax na it ne képp koo xam ne danga teg sa tànk jëme ko fi sunu borom subhaanahu wa taala santaane nga jëme ko fi na nga xam ne loo gis si lor taxoo koo jug waaye itam képp koo xam ne euh, fettirlu na topp bakkanam na xam ne lépp lum gis si lor bu ko dee wattandiku itam na xam ne loola moygu ko li fi wàccun yoon moom jaar kon nag Euh, la Cheikh Abdoul waxoon rek euh, jamonoom li tax ab julit rawatina am murit fa muy dugg mu war ko di xam la muy def mu war ko di xam dafa am jamono Cheikh Abdoul Ahad koo xam ne dafa duggoon fu mu war dugg ci barabu fowukaay gis fa nataalub sëriñ bi mu am ci ko naqari bam nar a jàppante ak boroom barabu fowukaay boobu wax ji coow li jub bam ak Cheikh Abdoul waaye ba mu ciy àddu daf ko war daf ko Sëñ Abdul Ahad waatal ne ko billaahi lazi laa ilaaha illaa hu su fekkoon ne dara dara dara ci tomb bu dund Sëriñ Tuubaa mi ngi ci yow foofa doo fa dem ba fa gis uh, nataandu sëriñ bi mu lay naqari ñu bari dañoo defanoon day ànd ak moom te waaye dana ko dara ci tomb topp sëriñ bi da nekkul ci yow bu nekkoon ci doo dugg foofa ba fay gis lu la naqari kon nag kenn ku nekk war naa fexe ba di uh, sàmmal sëriñ bi ndonole sàmmal sëriñ bi doonoon nag mooy nga nekk ci lislaam ji ndax sëriñ bi moom amut moom moo doon doonoon ñagub lislaam doon ko sàmm kon ne képp koo xam ne yaa ngi ci teg sa kem kattan sa tànk na nga xam ne yaa ngi ci sàmmuk sëriñ bi yaa ngi ci ndonoon sëriñ bi yaa ngi ci it ci bëgg-bëggu sëriñ bi te li ëpp solo mooy sëriñ bi nangul la li nga koy defal sëriñ bi kum nangul li nga koy defal rek sa mbir baax na tey te bu ëllëgee dana baax keneen ku la mën a nangul nag te moom nangulu la mar si su boobaa dese nga lu baree baree baree bari loo xam ne dabaatal ko duut yomb kon nag nañ fexe ba suñ pas-pas yi ñu ko yii ñu dénk suñu borom muy pas-pas bu sell euh, jaarale ko ci yonent sallallahu alayhi wasallam te moom muy suñu buntu suñu borom nañ fexe ba lam doon santaane ñu teg suñ kem kattan bañ koo wàcc li nga xam ne mooy lam doon wattandiko itam lañ ca man ca euh, wattandiko teree nañ fexe bàyyi lépp santaane yi nag lañ ca man ñu di ko def ba bañ koy mën a defee dëgg-dëgg nañ ko santaane waaye tere yi moom buñ ci jéem a laal dara daana wax ci tombam yooyu mu daa def nan tayel jur ñàkk waaye neex jur gàcc waaye nee na adduna si lu fi neex-neex ci yow jur alaxira kon nag nañ fexe ba bu ñu genn tayel yëpp ndax adduna bii rek danga gis ne li ngay fàggu ngir bëgg koo am boo tayelee dëgg-dëgg doo ci jot waaye danga gis ne bànneex lépp lu mu la mën a yóbbi rek bu ëllëgee gàcce go bu ñëwee da nga fàcc da nga fàtte mboolem loo mosoon a am ci bànneex waaye àllaaxira itam képp koo xam ne jël na ko jënd ko adduna su ñàkk solo si nga xam day yeex bu ëllëgee ak réccu mën na koo def goo xam ne dabaatalaat ko lu jafe-jafe lay doon kon nag nañu góor góorgóorluwaat bu baax yokkaat jéego yi te xam ne euh, jaamu yàlla gi day continuer santaane sunu borom yam doon santaane laata weeru koor di ñëw day wéy bu weeru koor bi accès dañ koy gën a renforcer ndax suñu borom moo wuutale bis yi wuutale weer yi moo ko tax weeru koor bu ñëwee liñ la doon tere dañ la koy gën a tere waaye liñ la doon digal ci lu baax dañ la ciy gën a soññi ndax bénéfice bi da ciy bari kon nag xam naa kàddu yi daal du yàgg waaye nañ góor góorwaat te soññ waa ndaw ñi nag ñu jàngaat te yaraat leen ndax njàng akum yar ak yar ñoom ñaar dañoo war a gungente kenn waru ci dem bàyyi moroomam te gis nañ ni it xam-xam yi jamono ji xam-xam nag kenn du ko wax lu koy doye dal waaye nag ñu bari ñu ngi koy sàkk waaye nag yar bi des na lool ndax yar bu des mooy nit ki ne wétt taxaw jekk-jekk wax loo xam ni aw tajaanga mu wóor ko ne dara du ko ci fekk mu jekk-jekk wéet ci ab néegam wala mu wéet ci ab saalam wala mu wéet ci ab ëttam toog wax loo xam ne ne day jekk-jekk daj adduna bépp tey doon ak njooxam mu wóor ko ne dara du ko ci fekk loolu ak ñàkk ñàkk defaru ak ñàkk bi moo koy waral kon nañ yaraat njaboot gi nañ nañ nañ jàngalaat njaboot gi te yar leen gën leen tegaat ci aw yoon la ca la ñuy tëjee nag mooy euh, dëkk bi di Touba euh, bari na lool ñoo xam ne ba léegi ñi ngi fi jànkonte ak jafe-jafe yoo xam ne mu ngi jëm ci wàllum ndox mu ñu naan loolu wax nañ ko fi ay yoon xëy na nag koo xam ne jaaroon na ci yow nga doon ko yëg ba yëgatoo ko da ngay defe ne jeex na waaye barina ñoo xam ne ba fi may wax ak yow nii ci root mu méttee méttee métt lañ nekk biir koor gi gis naa ñoo xam ne fii ne bu 6 di demi jote ci ngoon dañuy yenu ay paan ngir am luñ buñ dogee luñ luñ luñ toggee ak luñ naan loolu loolu teg naa sama bët ci mbooloo mu bari ba bërki démb biñ si biñ séntu eh, weer wi ci séntu bu njëkk bi ci la loolu door a door a saafaraw te loolu dese na fi ñeneen ñoo xam ni itam ñu ngi dund dund woowu kon liñ mën ci jàppale leen ci anam googu nañ ko def te yokkaat jéego yu baax a baax. la ci tegu it mooy bépp sànc boo xam ne joxewuma ndigal waaye damay laabire bépp sànc boo xam ne ñu ngi ko war a jëmale ci dëkk bi te màggalu Tuubaa war ko fi fekk nañ jëmbale nit ñi ba tàmbale ko nëga ni ndax bàyyi ba màggal gi des weer yu néew nga tàmbale loo xam ne day gàllankoor nit ñi seen i dem bari na ñoo xam ne seen lu si nekk da ci yàqoo ak seen kii loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax te su boobaa alal ju bari la ñuy suul ci biir suuf si te du tax la ñuy def nam war a mel dëgg-dëgg ci baaxaay mu def ciment moom benn yoon lay tooy lépp loo ci xas tooyal wala mook ci ba suul ko yàqu na boo boo ëllëgee da nga donc defaat neen kon nag lépp loo xam ne ñu ngi koy jëmane ci eh, ab sànc boo xam ne dañ koy wutal ab àpp bëgg balay ba sàngam mu mu àgg nañ ko teel a tàmbali ndax nit ñu noppalu la ñuy def itam mën a mel na war a mel su ko defee bu ñu ko jógee jàll ci leneen ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanalaat alxaaji Mouhamadou Amine mi nga xam ne moo sancoon bàkk bi te jëmbatoon fi lu baax lii ñu def nii suñu borom gën koo jegeel ak sëriñ bu mag bi xam nekk te gën a yokk yërmandeem ak i xéewalam mboolem lu ñuy wax ci ay exemple ci nit ku baax rek mën nañ cee jël dara ci moom ndax xam nañ ci lu ñu ciy jële ci moom kon roytee fa ngoogu ci anam yëpp ñoo ngi ñaanal sëriñ Moussa mi fi nekk itam di eh, jëwrinam yàlla bàyyi ko ba mu àggali yéen yooyu di nuyuwaat ñëpp di bala xàq ñëpp di nuyu jul yëpp leen sant kon xam naa ñu jox sëriñ bi rek ñaan PDR